What's up? What's up? That's my crew, Curly Crew. You know how we do. It's for real. Yeah, man. Now you're nice. I be nice, no? You know, I'm the vibe, I'm the style, I'm the I'm am na i am the engagement yeah that's hip hop lii mooy mission hip hop. yes guy. hey some guy. You yéen a ngi focus ah bu can kenn deconcentrate. stay focused. stay focused. kenn du dem xeex nag ak des mains wax naa leen ko soyez prêts briquet temps bi briquet waru fee manqué briquet allumette pneu essence cocktail molotov day molotov ak lépp luy kaba kaba nag moom mooy xeeru raay xeeru wow yi yaa ngeen dégg kon nag loolu ku ci nekk war nga ko am jamono ji util briquet ku nekk ci ñun soldat bu ne war na am briquet parce que way dem guerre da nga war a armé briquet almet pneu essence xeeru raay cocktail molotov and day molotov be ready you know yeah qui veut la paix prépare la guerre loolu mooy dëgg kon stay focus encore une fois stay wax ji dafa jeex léegi lu ñu waroon wax yëpp wax nañ ko discours guerrier yi ñu waroon def yëpp def nañ ko toll nañ terminus wax nañ ko garsa garsa wax nañ ko kenn duñu ko defati wax nañ ko li dal Mamadou ja dal Blondin Diop dal Thomas Sankara dal Cheikh Anta Diop et cetera et cetera dal Lumumba du dal maanaam ki nga xam ne mooy Ousmane sonk maanaam jamono jooju ñi fi nekkoon di seetaan ay dinosaures ay vampire ay nooxóor ay juda ñuy jël suñuy leaders yi di leen tëral di leen rendi ci bëtu doomu aadama yi ci bëtu askan wi seen deret di fendi àdduna boobu moo jeex yeneen doomu aadama ñoo juddu ay doomu aadama bañkat yoo xam dootuñ nangooti jël seen yaakaaru féetale ko ci benn leader ay bandi ay xaju xaram def seen association de malfaiteurs di jël ay leaders politique yi nga xam ne askan wala Afrique moo am ci ñoom yaakaar pour ce un changement radical ñu jël leen tëral leen di leen rendi ci suñu kanam loolu moom ñun kenn ci ñun ñaanul yàlla fekke jamono boobu parce que jamono jooju man li ma yàgg wax samay parents nee naa leen bu ma fekkoon fekke woon jamono yi Cheikh Anta Diop nañ ko toroxalee du ko seetaan bu ma fekkee woon jamono lu mu mbaa nañ ko def ma nekk fa duma ko seetaan bu ma fekk woon jamono yi euh, ni ñu def Mamadou Dia ma ko fekk woon du ma ko seetaan ni ñu def euh, ki nga xam ni moom mooy euh, Blondin Diop bu ma ko fekkee woon dinaa xeex yàlla def na nag loolu dama ko yàgg wax samay waajur far yàlla def ma fekke benn leader ci sama jamono leader bo xamni dañu dañoo bokk ay conviction bokk ay vision bokk bëgg-bëgg bokk way bokk doxalin bokk principe bokk idéologie koku muy Ousmane Sonko donc duñu sétane man mom ce qui me concerne duma sétane seetaan yobbu abattoir diko teurel diko rendi directam di fendi ñun ñuy dund on préfère mourir ñu jaar suñu kaw pour mun ko ray mais duñu musa sétane taxaw ñu dox suñu kanam suñuy bët ñuy dund ñu dem tëral ko yóbbu ko abattoir rendi ko loolu duñ ko nangul kenn jamono jooju dafa jeex donc di leen wax yéen ñëpp soyez prêts soyez prêts demain incha allah incha allah na ñëpp daje obélisque Colobane na Sénégal yëpp génn nañ mat ay millions de sénégalais won Afrique won monde bi que ñu ngi subir injustice ñu ngi subir banditisme d'État benn nit ku tekkiwul dara ñëw dix euh, douze ans de pouvoir di naan ay du ma wii wala du ma ne parce que bu fi ne wii dañ koy noq Macky Sall gënuñu ëppuñu force de l'ordre yi kawata nañ booy boy ngor yi rek tas nañ leen ñoom ñëpp a ngi ci hôpital yi ñu ngi bëgg a dee gars yi da leen di xool yërëm leen dañoo tas te Macky Sall doomam ay doomam ak njabootam mi ngi leen bien garde jël ay doomu jàmbur yóbbu leen au front booy di raak matin midi soir te yëgu ci dara ñii di ci gaañu faju leen ñii di ci dee bala ngeen di bala ngeen koy xam dem leen laaj ki nga xam ni mooy gendarme bi nga xam ni moom moo fi yore woon euh, moom moo fi ubbi woon grenade ba mu explosé ci loxoom. tey mi ngi nii dañ ko génne ci gendarmerie bi fay ñu ko dara fayuñu ko tous rien à histoire boobu dama cee xam lu bari bëri bari bëri bëri.

munoon leen rey te rey ñu leen di leen bu mun nañ leen bu ñu leen jekkoo mun nañ leen sotti essence te duñu leen ko def def leen beaucoup attention boo leen jekkoo booy ni ngeen leen di toroxalee noonu di leen dóor di leen sentir di leen joggi booy yi ñi ngi leen di jekku bu ñu leen jekkoo bu ñu fayoo dina metti trop ci yéen te bu boobaa kuy deele ñun ñooy deele boo reyee benn gendarme ñun suñu kër yi ñoo koy dëj parce que gendarme ci ñun lañ dëkk boo reyee policier suñu kër yi ñoo koy dëj suñu yaayee koy jooy Boré ben jeune suñu yaay ñokay joy parce que yéne ngi ni ray xalé bu ndaw 15 ans assassiné ko suñu waa kër yi joy, am xalé bu bobu nonu tay mën na am magam nek policier wala magam nek policière wala gendarme donc c'est nous dans nous amul nak nag ñu di leen wax ay leen amul bal, bu leen leen pour pré pour def sale boulot dinañ leen affronter te on le dit haut et fort Si leen nekkee nit am sens ci sen xel war ngeen xam ni Macky Sall da leen di utiliser force reste à la loi lolou ay kessaw la force restera toujours au peuple souverain intègre digne fofu la force di nekk donc kep ko la force reste à la loi la loi la plus la loi la plus forte c'est la loi de la rue c'est la loi du peuple par le peuple c'est le souverainisme le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple C'est le souverainisme donc peuple amul pouvoir force nag day rester ci peuple bi force mu su rester ci loi loi ay peu ni koy def loi force reste à la loi la loi c'est pas la police c'est pas la gendarmerie la loi c'est le peuple le peuple bi jógoon tey jii ne am na lu ñuy def ci dëkk bi ñëpp génn benn force de l'ordre mun leen arrêter ci ngay force reste au peuple force ne peut pas rester à la loi

christianisme mom la bëgg wax bëgg la wax bëgg ko bu kenn di bu kenn di di joggi di bëgg un point un trait que ça soit clair lu ñuy waxaat nag moom encore une fois ngeen préparé wu la dernière fois defoon ngeen ko en 2021. de force bi ko soyez prêts mënuñoo jël aji saar ab fenkat jigéen taxawaalukat wëndaalu ba taatam tàng ñëw taxaw ay autorité jël ko pour ay règlement de compte ñu jël utiliser ko mu nekk benn cobaye ñuy jéem a jël aji saar di pour liquider un opposant politique sans ñu am benn preuve ci lu ñu yor amuñu dara ay loxo vide lañ yor loxo vide lañ yor Il faut que ça soit clair. Suivez bien mon regard. Je vous reviens samedi. Inch'Allah. Je vous reviens. Je vous reviendrai samedi, Inch'Allah. Avec un live d'enfer. Vous devez voir avec des révélations. Et tout ce qui veut. Ligne plan, c'est un plan. pexe yi ñu def ak ndëgg sërëx yi ñu def bu fekkoon ni Sonko day jóg simplement dem oui ji justice sans problème fait fa ay juge yu yu impartial yu farul fenn boba, mais si ni des def lo xamni dara vide dossier vide ñu jël ab tiaga pour mu éliminer les leader politique à travers la politique ñu tek presque deux ans muy xaar ñukay garder des jox lek diko jox solal la sang di dundal sax njabotam di dundal sax ay kon loolu c'est le gouvernement sénégalais moy xex ak Ousmane Sonko c'est pas une fille Moy xex ak Ousmane Sonko donc na ngeen ko xam ñu préparé wu parce que lima ma leen di wax c'est clair Macky Sall jël na ben cabinet d'experts, jëlé jëlee leen ba France indi leen Sénégal pour ñu défal ko ay ñu xol pour ñu mun a xool ba xam tey bu élection amone kan moko mëna jël sondage ñooñu bu ñu ñëwé amone na sax ay sénégalais yi ci nekkaale yi nekkoon France bu ñu ñëwé fi wax naa leen def nañ sondage dugg nañ ci terrain bi def nañ seen sondage comme ñom ni ñu ko jàngee ci ak statistique yeeg tout ils ont vu que Sonko a eu 60 premier tour 60 premier tour. Macky Sall a eu 21%. Kan mo ci karimwad euh, Karim Wad. Il a eu 6%. Khalifa Sall a eu 3%. Idrissa Seck a eu 2,80%. Donc ñom xamnañ ni buñ démé élection Ousmane Sonko a kay gagner ci premier tour avant sax Mili. donc loolu Macky Sall mi ngi ko def pour xam ba xam Ousmane Sonko bu ko fi bàyyee est-ce que du doon danger ci moom ñooñu buñ ko joxee loolu encore une fois ci la xam ni kon Ousmane Sonko bu àndeek bu demee bëri leen di daan buñ ko fi bàyyee te tëjuñu ko moom mbër bu mu gunge day daan cest à man sax Ousmane Sonko bu ma gunge woon ma dem ci élection présidentielle yi man damay daan kon ñom xamni Ousmane Sonko buñ ko fi bàyyee te demul sax ci élection yi ku mu àndal day daan donc lool lepp ay mbir la yo xamni jox tek nañ ko ci table Macky Sall wax ko ko won ko ko xamal ko ni ki bo leen démé day daan bu àndee candidat nge candidat ba day daan pour muy lèr donc ñom ñu xam loolu ñi légui ci mbiru Adji Sarr nga xamni amul dara dossier vide bu amul ben importance Nous avons fait nuñ ko def pour def ko benn procès moral fen sos jëm ko ci bi comme ça ñom Sonko affaire bi fekk ko ci kasso bi ñi nga xamni ñoy opposants yi féroce yëpp loolu dafa yag am fi élection sénégalais dañuy yag seetaan ñi jël seeni opposants di leen tecc ci kasso élection présidentielle yi passé Khalifa Sall la ci kasso élection présidentielle yi passé Karim Wade nga won ci élection présidentielle est passé Jura Diaz mi ngi woon donc du bëgg a jël élection bii jël Ousmane Sonko dugal ci kaso bi nga xam ne du am possibilité ni aller voter ni participer aux élections présidentielles et ni accompagner un leader bu nga xam ne moom lay jël jiital ko ak parce que Ousmane Sonko bayre bayre la yor fu mu dem ñëpp topp ko donc leader ku andal, àndal nga génn ci bu la gungee bu bëree boo ko songee boo mu daane bu gungee mbër mbër ma daane la donc loolu Macky sàll dajale loolu lépp xam na loolu donc moo tax muy préparé pour mun a gàllankoor Ousmane Sonko du dem mais jéem a xool nu mu ko dugalee ci kaso bi en ba créer benn élection moom bu ko dugalee ci kaso bés bu ko defee te mënu ko mais boobaa dina taxawee ne créer benn élection boo xam ni yoraa ay xalifa Sall bu dee baal na ko yoraa Karim Wade yoraa Idrissa Seck ñoom ñëpp ay waxtaan la seen biir Euh, y aura peut-être même Barthélemy Diaz parce que ñoom loolu lañ nekk di gëmloo Barthélemy Diaz ci biir xelam di ko xamal ni ko yaa fi jiitu Ousmane Sonko bu nga nekk ci fii nekk moo tax moom boo xoolee discours am sax loolu lay wax maa ko fi jiitu moo fi nekkee nekku fii lu ma daj ci gii parce que loolu lañ nekk di ko dugal ci noppam mooy baayam euh, ak ki nga xam ni moom mooy naar bu dee ba newoon ca euh, pale ba muy Mahmoud Saleh baayam muy euh, Jean Paul Diaz bi rayoon ñaari xale ya ca ndoofaan ci élection ya mbëkk leen ñu faatu ba léegi fu nekk ni musul dugg kaso te rey na ñaari nit Jean Paul Diaz bu leen fàtte Ndofane fiiroon na fa ñaari doomu aadama faat leen ñoom ñaar ñëpp dee seen bakkan dem rot moom Jean Paul Diaz ab criminel la bu nekk ca pale ba donc ba léegi waxuñu mooy jamonoy Abdou Diouf Abdoulaye Wade waaw Jean Paul Diaz rey na nit rey na ay nit donc di leen xamal ni donc papaam ak Mahmoud Saleh ak Macky Sall ñooy am lu ñu dugal ci bopp bi di ko gëmloo di jéem a wàcc Ousmane Sonko ak di ko gëmloo ni yow yaa ko fi jiitu yaa ko njëkk ci terrain bi yaa ko njëkk ci politique yow kii war a topp ci ginnaawam yow boo demee sax mun nga ko mun ngaa jël donc ñuy préparer pour mun ko def seen benn candidat ñoom donc voilà au moment où Macky Sall moom buggul dem. moment bi nga xam ne éliminé na Ousmane Sonko donc loolu moom ñun duñ ko seetaan ñun doomu Afrique Afrique doomu Afrique laay wax on est des panafricanistes duñu seetaan loolu donc soyez prêts les gars taxaw leen euh, focus bu leen nangu leen lu leen divertir man maa ngi fii Montréal euh, Bart Barthélémy Diaz a ngi fii Montréal seeti wu ko xooluma ko lijjanti ko intéressé wu ma mi ngi fii Montréal maa ngi fii Montréal même dëkk jamono jii mi ngi fii. man maa ngi fii intéressé wu te bu ma ko fekkoon foofu sax Dakar maa moom wala ma wax ko lu dul deñ parce que on n'aime pas les traites on n'aime pas les traites yee dans mon crew y a pas de place pour les traites keep it munoo am numéro ki ngay waxal mu yor sa numéro mu wax dara nga ku dugg ci waañ bi nga ne tuuru ma ñeex bi nga jël sa téléphone loolu mooy yëfu góor yàlla man boobu bu ñuy ànd nga wax ben wax ma sentir ci sama bop duma genn di wax dama lay wo ne la boy li nga wax lan la man ngay waxal wala nangam ngeen waxtan li ngeen ci waxtan lolou moy yefu gor yalla lolou moy gentleman gentleman du don du mbebe du don mbebe gentleman du don du rataxle làmmiñu bëyu ndep mbet gentleman bo amé numéro ki sa kaay sa nigga bi nga yaga andal da nga jël sa call nga call ko you know nga kóol ko baag ne ko man maa ngi dégg li tel tel tel was going on mais lan la lu xew lan la mu tagal la you know ngeen ngeen xool bu fekkee dafa laaj biif après bu boobaa biif bu fekkee ni respecté wul sa wax you know loolu mooy gentleman gentleman du dégg na rek tëll te am nga numéro am te yàgg nga koo woo donc loolu mooy gentleman donc boo leen gisee actam bii nii ça montre que am la lu nekk ci ginnaaw dañ ko monté dañ ko monté de toute pièce muy tëñëx tëñëxi mais Sow deful yëfu gentleman yëfu bitch la def yëfu juudaa la def yëfu traître la def You know, cowards die hard. No, I'm telling you, man, you know what I'm talking about. Cowards die hard. try to be real da doon real real ci li ngay def parce que yow yow gaay nam nga tey possibilité bi nga am ci Sonko man boo amoon ci Sonko bu may dugg sama plan d'infiltration d'espionnage kon tey bu ma doon monter photo boobu noonu kon kon euh, possibilité bi nga am bon dama koy def bu boobaa damay woo Sonko ne ko maa ngi monter benn photo mais damay espionner dafa am lu may bugg dafa damay door pour am dara damay espionner dama bëgg récupérer tes ennemis dama bëgg xam si tes ennemis lan la plan lan moo nekk seen xel lan moo nekk seen i pexe pexe on parlait de Adji Sarr Adji Sarr jamono jooju tout l'affaire c'était Adji Sarr donc ñoom nee am nañ tel am nañ tel am nañ tel lan lañ def pour infiltrer leen xam la fa nekk récupérer ko dem seen yoon donc dañuy kagule wu wàcce kagul yi mel ni du ñun fekk ñun la donc loolu c'est benn système la il faut être stratège système la moom mooy système d'infiltrage moom mooy système d'espionnage lolou nak bo deful FBI wala nga def street bi doo ko xam bo déggee teul rek da nga naan damm na te kàkk nag taxul mu dam donc moo amoon possibilité bob même pexé bob moko don def kon boobaa damay wo Ousmane ne ko Ousmane ma ngi wadjal ben affaire nak mais li li la quoi en fait dama ko def pour def li pour am ci li lolou motax quoi ok bu boba moko accepter ko

des ennemis parce que lu ñu acquérir am nañ ko ba pare donc il faut récupérer ce que l'ennemi dit détenir bu ennemi bi ne moom yor na bazoka yor na bombu mu wóor na yow kamikaze di nga fa jëlee dara nga xool stratégie boo mën a def l'art de la guerre pour mën récupérer loolu mais man aw possibilité boobu yow am nga possibilité bi kon l'oy génnee di mbeb mbebi loo génnee di mbeb mbebi looy génnee di mbeb mbebi hmm? mais boo génnee bu dee am nga possibilité woo ko danga ko war a woo mais da nga def yëfu fake Diaz da danga def yëfu fake mais real fake I'm telling you voilà léegi nag jamono jii moom affaire bi af xaw na yëngutu nag mais <laughs> grand Samba Nini Kumba grand bi doon na ma fi menacé nee na Macky Sall dafa may jël dina ma jël si mais na man jël si bi dafa yàgg trop waaye yéen gars yi loolu jaaxalu leen depuis bëreet bi ba léegi Macky Sall war na ma jël si. ay nitam damay gis dañuy yuux rek ndeysaan nan Macky Sall non vraiment début bi lan la leen wax di nga xam ni l'état est fort di nga xam ni l'état est fort dañuy nappaatee sénégalais naan la loi l'état est fort di nga xam ni l'état comme soxla na la jëlee ma ne ko da ngeen di duul da ngeen di kàcc bu ma leen joxoon loxo sax doole moo yóbbu fu ma taxaw dafa dëgër kàcc woo kongu man man bandi laa bandi bandi cerveau laa balaa maa jóg damay préparer lépp du ma Assane Diouf te di ngeen xam ne du ma Assane Diouf te di ngeen xam ne du ma Ousmane Tounkara maa leen di jommal man picc bu ndaw mii man melentaan mii maay màtt seen taat yi te doole ma mënal tus di wax lu ma neex lu ma saf te doole ma mënal ñàddërëm bàyyi Macky Sall sax mënulu ma ko te la ma leen waxaloon lool dëgg ja <laughs> man maa ko aaki boo waa ji ne woon na dañu nañ yónni commando xar naa commando ba commando ba ba mu ñëwee lem naa leen noq ci douze ba xëcc force ba xëcc sas ba euh, mu dem ca foos ba mën a menacé meeg ay nitam yeeg yëpp ñëpp laa ñuus toog seen kaw même grand bi ne dama non boy je te le dis ma bii moom dañ lay jëli maa ngi nii ba léegi toog relax di enjoy di leen ñuus ngeen di saw di jooy te mënu leen ma foog donc loolu moom dama ne ba 2024 c'est maamu Macky Sall munu ma yëngal ba 2024 bàyyu Macky Sall munu ma teree nalaw Sénégal wërngal këpp kenn amu fa pexe bu mu mën a jëlee fii ne daf may yóbbu kenn nii doole nii xam-xam nii rien du amu leen ko. moo tax boo leen fekkee ci seen forum yi ñëw APR APR ña ngay jooy non waa ji jëlee ko leen ko ba léegi non waa ji moom jàppaguñ ko ba léegi quoi non mais. fenkat yu gën yéen moo gis benn fenkat bu mun a fen moom mooy moom mooy moo nekk ci seen kii rek mooy jaxate yàqate. non non c' est que kii boo gisee jëlee ko ministre des affaires étrangères la ko mooy nalaw quoi ma ko ministre des affaires étrangères sax saaga naa fi ndayam <laughs> sa Aïssata Tall Sall saaga naa fi ndayam nga naan ma ay ministre des affaires étrangères ministre des affaires étrangères bu ma mënoon jël jël siwuma bu yàgg sen kii ak ki nekk fii rek saaga naa ndayam ki nekk fii seen avocat seen seen seen nu mu tuddati seen seen euh, seen ambassadrice bi. Vivian Mbampasi sax saga na ndayam te mi ngi ni jege ma ba génne fofu ay document ko fi dafal reub deum bu mi ma fi la saga ndayam bayuma Macky Sall wala wala wala Aïssata Tall Sall ñom ñëpp way sen way damay way damay ngeen nan ma xol leen ma bu baax man da man maay Tunkara man xol leen ma bu baax yeen man luma ma def ak luma ñimé def ak fumay infiltré ak dugg Ousmane Sonko amugul soldat bu mel man man damay kamikaasu mbedd mee ma yar damay kamikaasu di dugg fenn di explosé wu di naaw di rajaxe duma Ousmane Tunkara duma duma Assane Diouf maay ku leen di jommal ci àdduna lu mu laaj rek ma teg ko ci maa gën a féroce ci bëpp élément wu Ousmane Sonko maa ci gën a féroce maa ci gën a féroce maa ci gën a capable ëpp ci fit dama ne amul Sénégal lu ma fi mën a jëlee man fi ma toog nii njaax laa fi def di fi dund nekk sama jàmm xam nga lan moo fi am peace ñëw ay moo laa jàpp ci ngir yàlla sarax ngir yàlla loolu moo doo koy dégg all time koo fëgg gaa yi daw ñëw mbokk yee ñëw sarax ngir yàlla ba léegi rek léegi léegi rek jot naa fi ay sarax ngir yàlla sarax ngir yàlla rek man <laughs> loolu moo lay sauvé mooraa ah sarax ngir yàlla mais kuy dof-doflu di ma tëkku boo mu tëkkoo ma saaga sa ndey comme nu may def Macky Sall saaga sa ndey sa juróom-ñaari maam te doo fi tok toog ko enjoy ba ñu changer Ousmane Sonko nak ma ñew cakas bin bin cakas cakas bin bin xol bu boba di nga xamni ne ci man dara nay lèr donc gaay stay focus rek stay focus ñu continuer combat bi c'est tout waaw légui légui rek waa xalifis yi ñu waa Mollah yow li nga wax nangam nangam ma leen mel lool la dañu daan japp Khalifa Sall ngeen menacer ne buñ ko jappé ngeen def taatu ne ni leen seen yaay juree génne seen ndarpaay ni boo leen wah wax def genn def sen communiqué ne buñ jappé khalifa sall yeen khalifisti ngeen genn sen ndar pain ni def ni len sen yaay juré def marche man awma droit rax samay beut ba mu tal khulli dundu dund ba def tak wala bok yeungal sama yaxu ndig yeungal sama yax sama deret bi bessat awma ci droit yeen ko wax yeen yeen fi taxawoon di menacer mané len Sonko du khalifa sall Sonko du Karim Wade bañ fi bëggee jàpp xalifa sàll yéen a génn ne buñ ko laalee di ngeen def taatu neen ni seen ndeyi juree ñu jàpp ko dóor ko ci kaso yi ay at génnew leen seen ndarpaay ni ah <laughs> boo leen tasee sama yaakaar du ma ñëw ne leen tas ngeen sama yaakaar bëggoon naa gis ay ndarpaay ni xees yu ñuul yu chocolat yu orange yu bëri karaw yu ñu wat yu ñu étifor yu ñu zulu <laughs> yéen ko wax donc loolu loolu laa wax gel boobu woo ma xalifiste boobu ma ne ko hey non yow amoo respecté jigéen ma ne ko yéen a da ngeen may jox seen ndarpaan yi da ngeen di jox Sénégal seen ndarpaan yi ma raxas samay bët ba mu rafet parce que ba tey gis keroog damaa yeewu fajar raxas ko ba mu set dem ville taxawaalu foofu parce que ville ngeen waxoon da ngeen di marche ba dem rëbës donc foofu laa taxaw di leen xaar ci bopp koñ ba ba vingt gisuma ku may romb gisuma ndarpaayin gisuma bu xees gisuma bu ñuul kuk gisuma bu ñuul gisuma bu orange gisuma bu marron gisuma bu ñëwaat <laughs> sama yaakaar tas mooy yolleeku dox ndànk jël sama kalandoo ñibbi am naa ci droit ñun nag duñu xeexee noonu ñun euh, les patriotes de la république duñu xeexee noonu génnewuñ ndarpaayin génnewuñu sullu ay xeer lañ yor ay cocktail molotov lañ yor ay basoka lañ yor ay bomb lañ yor ay almet lañ yor ay brique lañ yor ay pëna lañ yor dañuy taal di boyal di rajaxe di toj di saccagé di boyal di taal loolu ñun loolu la ñuy liggéey ubbiwuñu ay ndaar fayen génnewuñu sullu boyal almet taal vum rajaxe toj récupéré dox ñun loolu la ñuy liggéey <laughs> bu feras wi donc ñun ay révolutionnaire la ñun duñu ay ñuy yu génne seen gi di dox di mars ak yoy dédé dédé dédé dédé ñun na boy na tak na tak jëppeet ñun yoy la na tak na tak na tak ay ci na boy na boy rajaxé rajaxé ay na mok na mok rumbax rumbax rumbax kos di rokos bum bum basoka bombu ay ci ay ci ay ci cocktail molotov taxarnaase largué bum ñun yoy lañ xam ñun kat lañ donc patriote yi mom ñun lool lañ xam defuñu joxuñu kenn suñu tadi yi joxuñu kenn suñu julli yi joxuñu kenn suñu yaram nga ñuy xol ak yendo yëndoo yoy ñuy dox di lapar lapar defuñu ko duñ ko def kon nak soyez prêt les gars soyez prêt samedi lepp samedi la samedi inshallah allah révélation explosive dañ leen wax ci def affaire yépp affaire jo aji sar yeeg nangam nangam plan yeeg yoy ñu préparer yoy ba bari na leen jox ben surprise bu waar gis naa leen ñu koy ñuy anticiper gis naa <laughs> non man maay bandi non carte gi may jouer ah deux mille vingt quatre rek laa mun a taxaw ci défilé bi incha allah défilé bi Ousmane Sonko bu paree ma ne ko Ousmane dama bëgg nga may ma nag fii nag laa jëlee temps wax ak sénégalais yi li ma liggéey ci révolution bi li tax tey nga toog fii tey bu boobaa dina ma ko may mu wax leen yëfu bandi yi may def infiltrage yi may def infiltration yi may def espionnage yi may def li may récupérer <laughs> non non dama nit bërki démb de aji saar nalawul bërki démb aji saar nalawul <laughs> maa ko teree nalaw billaahi wallahi wa taala barke alquran kon yàlla bu Sonko président maa teree nalaw bërki démb bërki <laughs> démb laa ne sar bum bum aji saar wa kii kan la tal rek dem avisé ji mati droit pom mati droit pom tam dugg woote gars di woote jaxasoo tëtëtëtëtë <laughs> aji mi ngi fi daa leen ko tagal bu mu ñëwee daa leen ko tagal daa ko jox sama gaañ ndagu la fekk man infiltré naa leen ba toog numéro bii kan la am ko ne non Mollah Morgun Mollah Morgun <laughs> kooku nag eh non yow da ngaa nangam rek yow bu leen ma boole ci lii ne war a mën a képp loolu lépp récupéré bagage yaa ngay yow de ak maa bon ak maa féroce moo tax ay gaayam yi bërki démb seetlu leen dara waa APR génn nañ naan l'homme qui a appelé ici qui a nangam Mollah Morgun xamuñu ci dara xoolal xamuñu dara fekkewuñu dara yëguñu dara dañuy anticiper te man bandi laa <laughs> dama leen infiltrer récupérer tëll génn loolu samedi la gis naa leen nag ñu def ay ay publication ñoom ñëpp nag te ñoo tiit nag non dañoo tiit maa bon coy maa bon man de Sonko bu ma amuloon xaw muy wax tey Sonko bu ma amuloon muy wax quoi maa yees <laughs> Adji Sarr Adji Sarr jël naa la de bu ngeen kii kan la <laughs> numéro bi yow ñu ne Mollah Morgun Mollah <laughs> eh, yow nangam rek ah yow bu dee ba boole ci léegi xam daw Adji Sarr tiit woote na Sénégal wër ngeen këpp la Adji Sarr woote heureusement rek audio yooyu maa ngi moom fii Adji Sarr woote na fii. téléphone bi wee wee wee moo tax si ca lendemain démb ñoom ñëpp génn man seetlu leen dara ñoom ñëpp man lañ publier. ah a un groupe de quatre personnes y avait Mollah Morgun dafa doon infiltré am na lu mu kii def leen attention piip piip man fo ma jaaree da ngay dégg piip piip attention attention danger danger attention attention danger danger fekk infiltre naa leen ba jël li ma war a jël paqueté Adji Sarr yow doo nelaw samedi doo nelaw dimanche doo nelaw lundi gis nga démb nu la tebe pourtant mu da ngeen doon xaar ma ñëw wax ci loolu gis nga nu tebe bandi la nak ci stratège la bandi mbedd moma ko formé noonu loolu la musa don technicité mañ yow aji Sarr ma la ko wax doo nelaw vendredi samedi doo nelaw dimanche doo nelaw lundi psychologiquement lañ lay abattre psychologiquement bi nga xamal ñi nga amal affaire donc gars yi samedi hein So I ready man brigade up as a star. brigade almet pneu essence taal les gars eh stay focused, man brigade almet and soldat soldier. brigade up as a star. brigade up as a star. brigade almet loolu my mooy chant de la guerre one love à samedi incha allah peace and amount yeah. one love jaajëf